daal di teew déjà euh, jàkkaarloo diggante le président Emmanuel Macron ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye ban appréciation. man man man est-ce que du ma yónnee bisu benn euh, image. Mhm. boo xam ne mën na ko illustrer ci kanam tuuti ñu doog a demal ci leneen rek après après ñu ñu ñu ñu. ñu ñëwaat ci loolu ñu ñëwaat ci loolu. dafa am dafa am lu ma lu ma bëgg quoi. voilà bu dee bisu mi ngi may dégg. Mhm. dafa am lu ma ci bëgg a wax. loo xam ne. da nga koy wax nit ñi mais parfois seen entendement du fa. du fa yegg. Mhm. voilà. voilà léegi mën nga ko envoyer en attendant ngay développer comme ça mu mu mu afficher ñu ko. voilà. voilà léegi euh, démb dem na fële ca fële ca France euh, ci euh, sommet ba fa doon am ci forum ba fa doon am nit ki tey rek gis nañu aussi des images yoo xam ne gisee na ak ki nga xam ne moom mooy le président Abdou Diouf te itam daal dina dem seeti ji ko. donc mhm. dinañ ci dinañ ci dellu si bu baax gis nga gis nga. image bi. waaw gis naa ko mu ngi nii yónnee naa ko. voilà léegi kon en attendant visite bu président Bassirou Diomaye fay en France tête à ak euh, le président Emmanuel Macron ak li fi jot a jaar yëpp diggante Sénégal ak France. démb hmm. demu président ca France ak tête à bi mu def ak euh, le président Emmanuel Macron ban jàngat nga ci def. bon li ma ci njëkk a def damay wax euh, li nga xam ne moo ko fa yóbbu. Mm-hmm. xam nga dañu commencé France vingt 24 am lu mu bind. bind bu xamadi yi tutoyé suñu président. Mm-hmm. li gars yi di wax ne bu ca dalul du metti xam nga rek c'est di Pape Alé. Pape Alé delloo. gatsa gatsa booy waa gatsa gatsa. affaire yi daal di euh, saf la mu saf. ñu mm-hmm. xam maa ngi dégg sax benn ancien kii wu kii di dal ci Sénégal. le fait que ñuy tutoyé président. ma ne ko ñoom dañoo juum. seen presse ci la ñu waroon a dal seen kaw ba pare. doog a doog a mën a wax parce que mbir mi. Mhm. dóor fayu la parce que nag problème bi mooy saan wuy dellu si li wolof di mhm. wax saan wuy dellu si mooy mooy sànni buy dellu si. Mhm. biisu am na lu ma ko jox ci kanam tuuti dinaa ci ñëw. voilà ñoo euh, ñëw na <laughs> léegi euh, saan wuy dellu si. loolu bay ëpp na ci léegi loolu ñu daal di nekk nit. léegi bu ñu demee président Bouga euh, président dëgg la président Diomaye. bi mu demee France. Mhm. muy ci invitation wu Gavi. wala organisation yu Union euh, Afrique. Mhm. wala yu demee na ñoo taxaw. bi muy wax sax ci discours am da ngay gis ne mi ngi wax ne président Macron suñu gan. Mhm. kon moom dañ ko dalal déjà loolu wane na ne moom jógul pour président Macron. président Macron it invité ko parce que comme xas na ñëw foofu mu daal dem foofu. dem seeti ko léegi nag bu fekkee ne bisu jot naa li ma koy badd. Euh, na ko illustré ma ñëw ci poignée de main bi parce que dafa am loo xam ne daf ci am solo mhm. loo xam ne président jomaa yi soit négligé wu ko parce que xam na naandite la xam na ni àdduna bi di doxee bi bi muy dem en attendant mu ñuy jox image bi muy dem ma gis euh, bi mu demee ba jub avion bi Ousmane Sonko taxaw maa ngi naan sama xel waa ji mbaar da koy yëpp te ko boo demee nii nga war a doxee ak motul ma lii ak lii ak lii euh, non xam nga dafa am loo xam ne dafa bon c'est très normal nag euh, ci àdduna. Mhm. kenn ku nekk nag ay man mii rek xanaa bu président Diomaye bu ko seqoon nag man buy dem fenn te ma xam loo xam ne war na ko mën a dimbali. Mhm. war naa ko mën a jox. ne ko ah lii nangam ak nangam. Ah. tout comme premier ministre. Mhm. ñaar lañ ñoo xam ne dañuy mottalante. bu pexey président Diomaye doxoon. bu doon ci pexeem rek la moom président Diomaye mu desoon ci moom tey Ousmane Sonko ngay dégg ne moom moo nekk président. de la di Sénégal. Mhm. mais yàllaa ko bëgg ni muy kii kon ñoom ñaar ñuy mottalante loolu du problème. Mhm. léegi loolu ngay gis ne bi ñu demee tey. Mm-hmm. def na fa conférence boo xam ne nit ñi da nga gis ñi koy seetaan ñëpp da ngay gis ne dafa mel ni moo fa doon. wax moo nekkoon star bi voilà moo voilà moo fa doon star bi voilà parce que tamit loolu la yàlla kii donte mm-hmm. na moom nag mook soxnaam biñ bi ñu àndee moom soxna si mooy star bi. parce que par rapport ak li mu sol. ak euh, voilà yi ñu daan gis ak yu demee noonu. Mm-hmm. mais bu ñu demee ci salle bi ba ña fa jël kàddu tey da ngay xam ne président de la république Bassirou Diomaye Diakhar mooy l' star. ñoo wax naan euh, kii ngeen a di toog ak ñoom Joe Biden ak ñoom Macron est-ce que yéen a ngi imaginer euh, forum am ba kii war a dem toog ji foofu. <laughs> neel ji neel bisu envoyé naa ko ñaar mais bon loolu mooy ñoom liñ toll lañ àttee xam nga ñoom dañu am problème léegi ñoom dañu am problème voilà dañu am problème xam nga ku mel ni Lat Diop wala ñooñu ñooñu dañu am problème mu nit ñoom dañu doyadi mhm. léegi boo doyadee yow yi ngay def même bu président Diomaye doonoon ki yées ci askan wi ñu jël ko porté ko teg ko ci kaw ñun la représenté. ak mhm. lu po Joe Biden wax wax wax. Joe Biden lan moo extraordinaire koo xam ne boo toogee sax nit ñi mën nañoo bon ma bañ leen a bañ ko tutoyer président la ak yooyu. Mhm. mais wax dëgg yàlla gisuma lu mu yóbbul. wax dëgg yàlla président Obama bi muy nekk sawar nekk. président mhm. Amérique ak yooyu ci la américain bi doon gis boppam ko keneen ak keneen mais loolu doyadi la rek léegi nag mu nekk ci entre les présidents. ni nga xam ne bu dee bisu jot na image bi. mu wax ma bisu jox ñu jox ñu jox image bi. voilà dafa am lu ñu farataal ñoom président yi. muy poignée de main. nuyoo bi ngay nuyoo comme nii gis nga ko. Mhm. fii yaa ngi gis que ne entre Trump la ak kay kenn du nangoo bàyyi. Mhm. sa loxo doo bëgg kii féete fii gaañante sax presque def nañ ko. da ngay gis ne moo président Diomaye joxante nañ loxo mais da nga gis président Diomaye loxoom nekk ci kaw. il a fallu que nga gisaat moom mu jëlaat loxo pour teg boobu sax da ngay gis ne tegu ko mhm. mi ngi ko xaw a teg nii mooy bi ñuy avant ñuy tàggoo mhm. mi ngi ko tiimale ne ci kaw parce que jàpp na ne xaj na bu ko bu ko tegee président Diomaye dina ñëwaat def nii parce que xam na ne même poignée de même ni muy def yëpp ngi résister problème mooy li tax loxo joomaay fare kaw. mooy il se pas euh, bàyyul daal. il se pas laisser faire voilà. dañuy wax ni sa loxo bu féetee suuf. maanaam ah. boo defee dafay duru ah. acte acte faiblesse. wala nangam gis nañu ne président joomaay foofu même bu dul jaay doole trop trop mais fexe naal ba loxoom nekk ci nekk ci kaw. Mhm. léegi nag waa pour mu wane ne doomu ko yóbbul. xaw a jël loxo bi ne nang voilà gis nga ko waaw nga feene yaa ngi voilà gis nga fii léegi nag fii ci fin bi bu ñuy hmm. tàggoo daa bëggoon a fayu daal di jëlaat loxo bi teg ci kaw moo tax joomaay bii a gën a garaaw maanaam bii koo ko def day mel ni sa booy la xale bu ndaw voilà moom mooy fee nga gis <laughs> tegaat ko ci kaw ba ba ba ba ci biir boo demoon ci entre Sarkozy ak euh, Poutine hmm. wala nga def ak Obama ngay comprendre hmm. maanaam am na ci foo xam ne Poutine mi ngi defal def ni def ni boobu nga xam ne Poutine moom mujj seede mais dañu ne nii mu mel ni benn xëti pigeon boo xam ne dafa mel ni dafa def ni di ko di ko di ko di mel ni loo xam ne dafay yëg présence su ak yu demee noonu nga xam ne ci yooyu. Mhm. lu chef de l'État yi di bàyyi xel la ak yu demee noonu. Mhm. mais foofu nit ki ci ngay xamee ne góor gi nga am quoi ki ki ki la représenté. ñun dañ koy xeeb daal di wax oyof nangam nangam mais boo demee fuñ la boo gisee koo xam dañ ne la sax teraanga. déjà ci ñun yoonu murit dañ ne la teraanga su nit ñëwee jox la ko mu ëpp solo mais nit ki bu koy forcer bu ko jox. Mm-hmm. man si comme ça man boo doon ñëw nii mas naa benn kilifa ci sama xaw nañu am ak mbokkoo ñu ñëw ci benn comme man waa Daar Rahman la mm-hmm. ma dajee kilifa gi du du waa Daar Rahman waa feneen la. mu jox ma loxoom rek gestu nii quoi mel ni nuyuwul nit. Mm-hmm. gis nga bi mu gestoo romb naa ko bu dem bu yàgg laaluma loxoom bi dama ko fenti rek continuer bon après soxna si bi mu kii affaire bi neexu ko ak yooyu mu laaj ma ma ne ko man waa daaru laa ñi ma yarandool ñooñu buñ lay nuyu dañ lay xool dañ naan la jàkk ci loxo jox la cër bi nga moom man du ma nuyu nit joxoo ma sama gëdd may taxaw foofu di la xaar man ceddo laa yooyu mu ko def. Mm-hmm. mais beneen yoon ba bañ dajee. non da la lay koy jox da lay jox sa cër bu mat yàlla moo bëggul ko ñàkk fayda. Mm-hmm. beneen bi nag wax nga ko ñëw ak sa ak ko tourment macha allah que kii sol na costume wala kee sol na xam nga man l'essentiel lan la samay tailleur dëkk. Mhm. ñoo ko ñëw. c'est ça made in Sénégal loolu. loolu laa gëm te boo xoolee soxna si li mu sol. Mhm. dàll yi fan la. saag ba moom gars yi nee nañu. fa président du président moo ko jëndalee non moo ko ndugg moo ko ndugg. loolu moom sumba jun ah, jël waaw nag saag ba mu romb sumba jun daal. waaw man daal xam naa daal ni niru na ko daal xel daal ñaaw na. mais sant yàlla parce que lii lii daal moo ci neex. Hmm. am sa njiitu réew boo xam ne su demee du la gàccaal. dèjà man maa ngi am bopp xaaral sax ma jox ko biisu man. da nga jàpp ne woon dañ doon. ma ne biisu na gaaw na ma may bii na ma biisu may bii bii moom ci kii la nu mu tuddee jamonoy euh, Charlie Hebdo. bii bii ca ca buuru Espagne ba. ba suñu hmm. waaj a demee. ba suñu waaj a demee nañu ko may. Mhm. am na beneen boo xam ne Macron mi ngi jàpp ci loxoom bi. Mhm. maanaam jàpp mel ni ku jàpp sa gone gu ndaw pour wan na rek gis nga euh, nit dañ na xar ci sa biir kër gaynde ci bitti. Mhm. wala gaynde ci euh, ci ci ci ci ci ci bit euh, ci xar sa biir kër wala xar ci bitti. gaynde sa biir kër ñun nag li ñu gënal xoolal bi. voilà ñun li ñu gënal. mooy boo nekkee fi nga doonum xar comme wàdd. daal di woyof. ànd ak nit ñi bëri yërmande ma bëri yërmande boo génnee nag. wane fu la fayda bu forum yi danaan tàngal moom. ah waaw day day day loolu xoolal ma li dem mel ni yow kii bay sukk nii xam nga lii ku ah, xoolal bi ki jàpp sa ginnaaw topp mel ni ku ànd ak sa doom xam nga ma lii bu ma koy seetaan lii représenté wu ma. ñu ngi doog am suñu président dëggantaan bu ñu wax jeune nag laa wax. parce que nag wax dëgg yàlla bu dee bien sûr non non man ci àdduna bi est-ce que am na ku xanaa président euh, Corée du Nord bi. peut xam naa de bu amee koo xam ne président Diomaye ko mag bariwul. Mm-hmm, bariwul te loolu sant yàlla. Mm-hmm. loolu nañ ko sant yàlla. yàlla daf ñu may lu baax. voilà. Mm-hmm. yàlla daf ñu may lu baax nit ku baax la. waay bi ñëwee ci Sénégal ak lim fi fekkee ak li demee noonu. di ñaan yàlla yokk rek. amin amin benn détail bu ndaw rek ci ci ci.